Eh, kita Riana. Apa nama menara di sini? Malarau, ay wai Riana mu wai. Lihat dengan ah, kesa, dengan lerman, anak dengan kalis, kata kalis. Apa nama lagi yang baik tuh, nang mana maya jelas. Wah, oh, yo fone kon, gede gede lek dem na eh, fuga nyai werd. Bimul lo mana nih kumon sere jai jusi na lo bisnes Eh, kon yo lek dengan jam bisnes dugal gede riana, ay wai riana. Bimul yusuf, daya ay ah, bisa udil lajuke. Cristiano Ronaldo, mo maimite wag pumadam si Tan Benemats Almasa? Almasa? Almasa bisa animal? Wow, wow, Cristiano Ronaldo, saya pasta na? Daya dulu kalau ini Senegal sa, pemuda visit turistik. Jangan mudah visit park an ah, ke eh, Arantu. Eh, dia, nopin. Munan ki, action park wager boleh bu, action wager eh pakalin. Dia nggak pun pasien kerja, pun pasien kerja. Amna ini nurug gay, ini nurug gol, ini nurug. bërbëtë yóbbu ko foofu balaa ngaa yóbbu benn pàq bu yóbbu juuj bu yóbbu aar yóbbu seen kër am na ay animaux waa lu xew kamoon la la doo bàyyi fen barki démb laa gis yaay mu laaj la ko am na riyaa naa mu ne mu ngi dëkk be di jekki gerte ko pare nga ñëw fii ku ko si lehi yi kam ne lex nga gerte ba diwlin bi jàpp nga ñëw fii naan Cristiano Ronaldo talis Kasadio Mar al Nasr. Eh, eh noppil ngay fen fii sa bopp bu reey bi li mel ni ndaalu dëmm yi dëmm fi ñu naan di galat ndiku sa bopp bu ñaw o mo na. en tout cas daal lu len wax de ngeen ko. bàyyi leen baadoola weer bi dee fay leen bori njógee ñamaane de. bonjour Polo. bonjour. eh waaw kii di Ndeye Ndiaye Guèwel eh, waay Ndeye Ndiaye ari waay. bien sûr c'est moi Polo comment vas-tu. waaw man waaw man dama bugg jommi wala lala. yow Ndeye Ndiaye Guèwel semaine bii passée nga jóge fii di yégle kew yégle kew kew. tey jii nii nga ñëw fii nga ne déggoo wolof di lakk français ànd ak tubaab bii duñ ci ay prononciation. mais Polo dañ koy tere. wala lakk français. waaw kay am nga droit lak farance ku jang mun nga lak ku deg mun nga lak waaye yow man dama la musu deg nga wax farance yow gewel affaire gewel la la xamee toj kaani poccal li nga ci bëgg nga diw tir ci wet géwél waaw waxuma loolu sax leg garaw wa leg tuba bi nga andal kala num tud jalik la tud farance la jógee jalik na nga def sama bien mbada arseli tuba andandir waa Ndeye Ndiaye Guèyeul yow kool nga bopp saa ligg bii nii boppam bii comme yi ndaw yi fu ñuy naanee buñ dóor tàkkee ba pare loolu lay dóor. quoi tu dis quoi mais parle français. waxuma dara wala yu yaari xëy na j'ai dit ta tête la bopp bi c'est c'est la c'est la ndaalu dëmm. mais c'est quoi ndaalu dëmm. c'est rien c'est à dire tu es beau tu es élégant. ah merci c'est ce qu'on me souvent. yow Poulon maa ngi ñëw dem damaa ñëwoon rek pour yëgal leen ne semaine prochaine damay dem France. Mag Jean-Luc foofu la ñuy defee suñu mariage. mariage hee yow foo kawee sa Luc bay ànd ak France di def mariage. Pullo kii Facebook la ñu xamante y a deux mois de cela. barki démb la ñëw Sénégal uniquement pour yóbbu ma France. xamante Facebook rek mu yóbbu la France loolu wóor. ah waaw. laay laa Ndeye Ndiaye géwél tey laa xam ne yaa bëri sa sa bakkan bokk bakkan yi di mel o Google bi. kool ko ak bakkanam mu ngand bii di mel peel maçon yooyu ñuy kuulee assez cool Hey, boy kam tuba, bàyyi lol mu ñëw ubbeel mu fi page Facebook man tam di suum saal man tam mu kol ba xam dina am mer tuba, quatre-vingts sa sax baax hey Facebook lu wëcc de fa ma ma maa ngi tuba, mu may njaraw. waaw. hey, ey wow. joxal booy séeréer marchandise bi mu teg ko ci saret bi mu dàq fas bi mu indi ko. asalaamaaleykum. waa kii lu ko dal xanaa doo dégg sa nopp lu ci nekk joxal booy séeréer bi mu indi ko. waa Poulo xanaa boo wuyu téléphone ba client yi nga war a mën a jaay na. hey yow doo noppi. yaa ngi ñëw fii gis mooy wax téléphone doo noppi nga tëj sa gémmiñ ba mu nga wax ma loo jënd. ak sa gàttaay bi ngay meli pot meew. xoola sax ma koy wax bot meew e yow kii jabaru kirigu la yow laaj la waa koñ bi kaa leen xool e booy kaf jabaru kirigu mu ngi nii kirigu jigéen waa turam yi moom ku waxal yow laay waxal sa gàttaay jabaru kirigu kaaranu woo karaba la sorcière mu yóorndu la lekk la e karaba karaba yóorndu ko nga gis ko yóorndu fétiche ñu wër ko ñu jàppal nga indi ko nga lekk ko lekk ko àdduna moom mag mu ñàkk fu moo fi gën a bon yaa sa boobu ndaw bi Hey, kan ngay waxal kooku sump xanaa sa sump maam la ak sa siddeen bàjjal jaay ma ceeb kilo lii ma fan damay hey jaay ma la mi yeeyaani ma jugal fi dema sem eh boy kam tuba la ngay na ngay tan mi et eh, Poulo man wàcc naa de maa ngi ñëw ñibbi. taxawal taxawal booy Café Touba taxawal mu am nu mu laaj balaa ngaa dem yow. mbaa jàmm la rek. waaw jàmm la kay léegi sànq bi may wax ak bu jigéen li mu doon kas noonu noonu ba laaj ba xam dëgg la dem a nu bopp kooku sump léegi bul mu nëbb kam yaay sama kari léegi sumu bopp bi day nu kooku sump wala kooku si dem bu mu si nu non bàyyil mu sedd bul di déglu wax yooyu yow tamit. booy Café Touba wax mu dégg rek bu fekkee dindi naa mbakane bopp bi est-ce que nuróowu la Ai, vai um, babuí